Euh, ancien ministre de la justice de fois euh, candidat à l'élection présidentielle mu nekkoon waxtaan. Euh, ah vous avez été député en quelle ah de ministère ah d' accord 83 bi ñu lay d' accord élu sur la liste ban PDS PS PS parti socialiste d'accord fekk na Abdoulaye Wade dàqalu ma PDS. moo ma dàqalu si moo ko wax. ah Abdoulaye Wade moo la dàqalu moo ñëw sama dëju yaay toog ñëpp toog mu ne kii maa ko complot pour dàq ko PDS. <laughs> parce que dafa mën xam-xam am fit. ah mais mais mais balaa may ba nan nga gisee euh, ku mel ne président Abdou Diouf dafa rompre une une règle de euh, qu'il s'était fixée. Euh, la discrétion voilà bu mu génnee nguur ba tey. mosul yëy yàbbe euh, Ablaye Wade moom ak Ablaye Wade ñu signé une lettre conjointe est-ce que li koy expliquer mooy fi réew mi toll woon ñu bëgg a dalal nit ñi euh, bu Ablaye Wade nekkul woon secretaire général PDS ma ne la waaw mais secrétaire général PDS parti la yore doomam nekkoon candidat ñu def ko lu ko neexul lu mu mënti def rek sens boobu la mais pour président Abdou mu accepté romb Amady dañ ko si dugal sa silence dañ ko ci dugal waaw bien sûr dañ ko si dugal. pour rompre wax toog sa silence 40 ans xaw ma 30 ans xëy suba ñu signé loolu loolu waaw yow tam c'est parti bi nga xam ne yow moo doon sa parti si boppam nekk si coalition. xaw nga benn benn bokk yaakaar. Mhm. nañ la wax nañ la wax nañ la ba nga gëm ne lii nga war a def. am na sax une partie de la lettre bu mu rejeté. waaw mu donc bañ ko daboo la ne eh man naam juum naa sa borom njaboot la yow tam nag nit nag day juum mag day juum. pourtant sénégalais yu bari nag dañ ko rafetlu euh, parce que ñooñu suñu kilifa lañu réew mi nekk ci tàngoor ñu yëkkati seen baat ça a contribué quand même à calmer. waaw mais mais lettre boobu la ne si biir. ànduloon nax nag li li réew mi laaj la la ne la ne si yoonu réew mi. si jamono jooju. non ñoom moom signé wul fu ñu naan ay élection 15 décembre rek wala di di di contredire conseil constitutionnel. ñoom moom li mu assume mooy c'est un appel à la paix. Ah, appel à la paix kay problème. waaw ah. mais lettre bi yëpp du appel à la ñu ne ñoom ñaar ko bi ñu ne ñoom ñaar ko signé du kese dugg na si li xew donc ba tey moom kilifa la magu réew mi la. ñu ko duggalee si wax jooju mën na ko wax génn ci partiellement ba tey yaakaar naa ne da doon ut lu rafet yaakaar naa ne lu rafet lu doon ut lu gën suñu réew li baax si suñu réew wante yàlla def na ne mujj na wax ne conseil constitutionnel mooy régler problème bi def naa ne mu jën wax lu mel noonu. Mm-hmm. waaw conseil constitutionnel bi mu fi andi. si mu ne mu ne moom bi mu créé en 92. Ah, mais alhamdulilah conseil constitutionnel boobu mu fi andi en 92. jox ko cër boo xam ne daf ko limité conseil boobu firi na boppam ba ne ko jërëjëf yaa am fi indi mais firi naa sama bopp si fi ma limité teg naa des principes constitutionnels intangibles yoo xam ne day ëmb àddina bi yëpp kon conseil bi c'est bien bravo Merci bravo beaucoup. président Abdou Diouf mais voilà. bravo le nouveau conseil uh-huh. bravo euh... les magistrats d'aujourd'hui bravo au président Abdou Diouf d'ailleurs mooy profité bravo aux magistrats d'aujourd'hui aussi uh-huh. aux membres du conseil constitutionnel uh-huh. ubbi les ba dugal ko dans l'universalité mm -hmm. et l'historicité de la constitutionnalité de nos lois lii Afrique dina ko jël maa la ko garanti tous les pays africains yu na a xeex ay constitution yooyu dinañ jël si àtte bii parce que àddina noonu lay demee ñun dañuy jëli France France di jëli Amérique mais tout l'Afrique dina jël si nii merci ma ciy profité waale di nuyu di fon bu baax a baax sama maam sama chéri boobu man rek maay journaliste bu am ñaari chéri ancien président de la République voilà ma di ko benn bi Ablaye Wade la waaye beneen bi Abdou Diouf la Abdou Diouf nag sama chéri légitime la. man nag rakk joo ah. rakk joo ah. am ñaari ñaari compagnon historique. <laughs> voilà. c'est sa chéri di nuyu madame la très grande première dame Elisabeth Diouf di ko ñaanal wér gu yaram di ko ñaanal jàmm. mu yàgg fi lool. boole ma ci nag mën nañu ah? sama ñaari compagnon historique yooyu ah, <laughs> sama ñaari compagnon historique la ñu Macky nekk sama troisième compagnon historique j'espère que j'aurai un quatrième compagnon historique quatrième compagnon ah, historique yàgg fi ah gunge ñëpp voilà en tout cas ma leen di nuyu ñoom ñaar ñëpp di leen ñaanal wér gu yaram fanu gudd et puis c'est un si couple euh, yàlla bàyyi leen fi bàyyi leen ci seen kanamu njaboot